asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa la nuyuwaat di la ziyaara di la bal xaq di la balu xaq di sàkku ci nga bal nu xaq bu baax a baax mu mel ni dañuy delsiwaat ak sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu fi nga xam ne fi lañu yemoon ak moom ci xaaye bi walla ci diiwaan bi toll ci xaayiya boobu nga xam ne da ci tagg Cheikhul Haaji Malick Sy radiyallahu taala tagg wu yéeme nag mu ne yaa man dara annahu maxsuusu amdaaxi bima xawat min sifaati shawqi islaaxi nee na yow mi nga xam ne xam nga ki ma jagleel sama tagg yi ak sama bàkk yi bàkk yi nga xam ne làq na melakaani cofeel ak yéwénal mu ne yaa man ay yow mi nga xam ne dara xam nga walla dara xam na na annahu naka moom su am daax yi mooy jagleeluk sama tagg yi may tagg bi maa xawat ca la nga xam ne làq na ko moom tagg min sifaati shawqi ci melekaanu cofeel islaahi ak yéwénal nee na ki nga xam ne daal moom laa jagleel tagg yi yow mi ko xam soo ko xamulee kaay ma wax la ko ndax kooku dafa jafe avant ma koy am lu ne daj naa ko ci pour daj kooku pour mun kaa jagleel tagg weeg bàkk wi déglul nee na jultul mawaamiya juttul maala fi talabin shaykan yurini thimaaral wasli lil maahi sëriñ Babacar si radiyallahu anhu nee na wër naa alimandin yëpp dëkkoo dëkk réewoo réew dem naa fa alal ju ma am financé naa ko pour yàlla wan ma sëriñ boo xam ne daf may wan meññetum àgg ci borom bi meññetum àgg ci borom bi waxuma sëriñ bu mooy wan boppam de sëriñ bu mooy wan musal meññetum àgg ci moom àgg ci borom bi moo tax mu ne jultu dégg nga maam tourné naa wëndeelu naa almawaay mais mal àllu manding yëpp réewoo réew dem naa fa waaye juttu tabe naa financé naa almaala alal ñu ne ko si lu tax nga financé alal jooju mun a xanaa fii talabin ci càkkutéef boo xam ne maa ngi koy sàkku seykan boo xam ne sëriñ boo xam ne murabbi boo xam ne yuri yi nii dama wan simaaral wasli meññetum yegg lil maahi ñel aji far bàkkaar ji te mooy sunu borom subhanahu wa taala alawtu kulla taluulin qad sama maa tasaali taraiqi min dalili afraahi nee na montagne montagne tiim naa ko ànd yit di laajte yoon yoo xam ne ndax daañu ma tegtal sama mbégte lii nga xam ne moom laay wër alawtu kawe naa kullata lun bépp gent xat sama bopp yëkkatiku na maa tas ali taraiki ànd di laajte yoon yoo xam ne ñooy jëm ci la may bëgg min dalili afraahi bàyyi ko ci sama tegtalu mbégte saadaftu fi alamin yawi ila alamin yahdi li di karamin wa daafi daaxi nee nag ci biir wëndeelu boobu mu doon wëndeelu financé sama alal lu ne ma daj ko ci daje naa benn montagne boo xam ne benn drapo boo xam ne ñëpp dañu fay dem di gindiku ndek koo koy Cheikhul Hadj Malick Sy moo tax mu ne saa deftu dëppoo naa tombe naag fii alamin ci drapo wala montagne moo xam ne ya wii dana tafu ilaa alamin jëm ci drapeau kilifa goo xam ne gu am kilifa la bu neexee nga firee ko noonu daje naag sëriñ boo xam ne fii alamin ci sëriñ bu mel ni drapeau nga xam ne ya wi dafaa tafu ci ilaa alamin jëm ci beneen drapeau mooy sëriñ bu am sëriñ sëriñ bu am kilifa te mooy kan Ceerno Alfaahima yoroole Cheikh Omar radiallahu taala anhu Ghali ah Cheikh ah, Ahmad Tidiane Sarif kon fii alamin ya wi alamin dii nga xam ne sëriñ boobu day orienté di gindi nit ñi lii di karami jëme leen ci yàlla mi nga xam ne mooy borom tedd ngay ak tiraanga yi wa daafi giñ naa ci yàlla mi nga xam ne mooy aji jañ ji yi ak musiba yëg yëpp addaaxi yàlla mi nga xam ne mooy aji tàllal suuf mu tëha banko naa sëriñ bu mel noonu sayqin murabbin bi rabbin waalidin rahimin sheykin wa xisnin xasinin duuna atraahi nee na sëriñ la boo xam ne dafa yaru di yarewaate ci yàlla yarewul ci boppam yarewul ci maamam yarewul ci leen de ci yàlla rek te waajur la woo xam ne wu bëri yërmaande ci doomam la nekk sëriñ boo xam ne tatala la buy aare ci lu benn tiis nag loolu la kon seyxin sëriñ la moom seyxul haaj malik mu rabbin bay aji yare bi rabbin ci borom bi waalidin waajur la raximin bay aji yërëmee seyxin sëriñ la boo xam ne waxisnin ak tata boo xam ne xasinin aji aare la aji musula la ci diggante tabaarakallaahu nit ki ak yi adduna ak seytaaneeg yooyu duna atraahi ci loolu benn tiis di am ci lii ma wax la man sëriñ Babacar Sy radiyallaahu anhu shayqin razinin munifin raiqin karamin mawal masakini wal aytaami sammaahi nee na sëriñ bu yëkkatiku la bu yéeme la bu tabe la mooy tappuwaay miskin ya girim yi nekk ko tabe lool mën a jeexe lool loolu bokk ci critères yi sëriñ joxe moo tax mu ne saykin sëriñ la razinin bay aji yëkkatiku munifin bay aji yëkkatiku lool raiqin bay aji yéeme karamin bay aji tedd ma wal masaakiini mooy kër tafuwaayu miskin yi mooy làqookaay ñu ñàkk ñi wal aytaam ak jirim yi sàmmaax yi tabewaakoon la moom sëriñ boobulee kon kookoy Seexul Haaj Maalik sheyqin aminin wadixin fi zamaani wa xidramin xidamin xariisil mawji sayyaax yi nee sëriñ bu wóor la de bu leer la ci jamono sëriñ la boo xam ne dafa mel ni géej gu xaayaan bëri ay duus lool nga xam ne fee yàkkoon la ci géej googa géej gi nag mooy xam-xam ak yaroog tabeeg lépp yàlla daal saykan sëriñ la aminin bay aji wóor wadixin bay aji leer fi zamaani ci jamono wax xidramin géej la boo xam ne xidramin aji xaayaan la xasil maw ji bay aji bëri ji ay duus sayaaxi boo xam ne tabarakallahu fi yàkkoon la sheyqin nafiisin wa miatain nafaisahu sheyqin muinin bi arwaahin wa asbaahi ndaw dëgg nee na sëriñ la boo xam ne sëriñ bu sell la buy joxe ay may yoo xam ne may yu la yoo xam ne léeg-léeg ah bu la yàlla tàgg tàggatul sa bakkan pour nga joxe ko dana jafe waaye sëriñ la boo xam ne mooy dimbali nit ñi ci ruux yi ci pour ñu mën a mos yàlla mooy dimbali jëmm yi itam tabaarakallaahu ba jëmm yi mel nan war a mel kon nag saykun sëriñ saykin sëriñ la moom saykul haj mali nafiisin bay aji sell waaye wa mitaa in jo wa mitaa in joxe waa kool la nafaa isuhu ay wëlëram mooy ay sellam maanaam buy joxe day seet la gën a wëlëre mu joxe ko saykin sëriñ la boo xam ne muinin aji jàppale la aji dimbale la nit ñi bi arwaahin ci ruux yi la leen di dimbale ba ñuy yëg yàlla wa asbaahi ak jëmm yi shayqin jara dikruhu bi alsunin wa ala xatta yudawwaru fi aflaaki amdaahi sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu nee na Seyxul Haaj Malik sëriñ la boo xam ne senegal gépp a ko xam àdduna yépp a ko xam ñëpp ndax ñëpp niñ koy waxee di ko tudd ci pénc yi di ko tudd ci média yi di ko tudd fu ne ba tax na nag ah dina dem ba wëndeelu sama tagg yi ci ay fëlëgam moo tax mu ne seytin sëriñ la boo xam ne jaraa daw na zikruhu turam ak siiwam bi alsuni ci ay làmmiñ waala kawe na moom góor gi xataa yu dawar dem ba ma ngay wëndeelu moom góor gi ci kawaayam bi af fii aflaaki am daax yi dégg nga maam ci sama fëla gi tagg seytin baraakabadi yaa muntaha amali seytin tabibi qulubin faaka jax-jaaxi nee na sëriñ la boo xam ne yett na sama xol bi ci cofeel mooy sama daytalukaay mébét sëriñ la boo xam ne mooy médecin xol yi tiim na sang yëpp tiim na sëriñ seet kooku mooy Cheikhul Hadj Malick moo tax mu ne Cheikhin sëriñ la boo xam ne baraa yett na cofeel gi kabad yi sopp gi ma ko sopp yett yett na kabad sama xol bi de yaa muntaha amali yow mi nga xam ne yaay daytalukaay sama mébét daytalukaay sama bëgg-bëgg moom Seykul Haaj Malik Sy sëriñ la boo xam ne tabibi qulub mooy médecin wu xol yi jàngoro xol mooy ka kay diagnostic seet ko bind leen médicament te médicament ya kat tàggal la ci wàllu yàlla di la toppaloo yàlla di la toppaloo yàlla mooy médicament ya di la yàlla ba jàngoro yëpp dañ faaka tiim na moom sëriñ boobu jax-jaax sang yi tabaarakallah wal jax-jaax la mu yokkuñu ba Seykul Haaj Malik waxoon jax-jaax boobu ma euh, nga de waaw léegi su ko defee ñu taxaw noonu incha allah boo léegi ñu commencé xaakum ah, aba ahmad al masur wala aba ahmad al mansour lu mu ci doon rek incha allah boo léegi ñu commencé ci